Je vous aussi euh, ñu le premier ministre Amadou Ba donc ngeen bal ma na mais du suñu sago mais le premier ministre Amadou Ba tay tamit euh, ma nga nga euh, bu ama am solo bo donc voilà donc donc Inch'Allah pour l'air donc je pense que euh, le premier ministre Amadou Ba donc ce jeudi euh, euh, a procédé à l'inauguration du centre régional des urgences de l'organisation mondiale de la santé OMS à Dakar Ce centre est situé à Djamnyadjo qui va améliorer la gestion des urgences sanitaires en Afrique, aussi bien dans la qualité que dans la promptitude des réponses aux épidémies. Donc, Premier ministre euh, Amadou ci liggéey bi nga xam ni son excellence le président Macky Sall mi ngi koy liggéey mu nekk liggéey bu mucc ayib kenn du wax ci wàllu santé kon tey jii jëwriñ ji njiitu jëwriñ ji tey donc tey ci alxames inauguré na centre régional bi nga xam moom lañ jagleel lépp loo xam ne urgence la mais de organisation mondiale de la santé donc OMS fii ci Ndakaaru centre bi nag mi ngi nekk ñaajo moom ngeen di gis noonu muy feeñ ci ci ci ci vidéo bi donc Diamniadio la nekk et dafay nek ñeu di euh, manam di africains dans leur ensemble ci li nga xamante gestion des urgences sanitaires Mais les urgences urgence sanitaire day am lu Ebola yalla nañ ci yalla musal am lu melni Covid yalla nañ ci yalla am ay épidémie nangam sangam bu donc yi muy feñ président Macky Sall tabax ko ginnaaw bi nga xam tabax na siège aux Nations Unies foofu nga xamante ni moom mooy jam nga xam ni ubbil Nations Unies ubbil bi euh, nga xam ne mooy étoile bi Senghor defoon ci digg drapeau bi muy l'ouverture du Sénégal par rapport au reste du monde président Macky Sall moo ko à travers la maison des Nations Unies mais aussi aujourd'hui à travers li nga le centre régional des urgences de l'organisation mondiale de la santé muy OMS mu nekk faites Quand sa vision ne dépasse pas mais sa sa vision c'est mel ni fi nga lancer fusée fusée tu as l'impression comme le ne tu souffres. mais du bas on transcende ou bien du bas on va vers le haut donc le président Macky Sall a fait décoller le Sénégal l'a inscrit sur les rampes de l'émergence aujourd'hui notre pays marche résolument vers les rendez-vous des pays émergents et nous en félicitons son excellent le président Macky Sall lui souhaitons bon vent et souhaitons une victoire écrasante à notre candidat monsieur le premier ministre Amadou au soir du scrutin du 25 février 2024. à toute la coalition Benno Bokk Yakar aussi Inshallah, taala boulen Boulen, Mouk parce que la victoire est là Inshallah, taala boulen dara lëmbe wala dara jaxase sen xel ba ngeen yaakaar ne donc tey jii moy mooy donc sante nañ leen la leen di ñaan Sénégal dafi